dal leen ak jàmm seen site d'information Sénégal 7 mbégte ak bànneex la ñuy am ñëwaat ak yéen comme ni ñu koy defee chaque lundi seen émission Maxi Lamb tey nag ñu fas yéene def euh, un spécial débrief ci combat bu amoon démb ci diggante Pokola Baldé ak Gakou 2 ñu war a def tamit un spécial Modou Lo Ama Baldé ñu ànd ci ak Alaaji Max Mbargane mu fas yéene ñoo defal les forces. et les faiblesses des deux lutteurs père ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar. waaw fii sa euh, maa ngi lay fay euh, Pa Ibrahima. Mm-hmm. sant yàlla bu baax julli ci yonentam bu tedd bi gërëm sunu ñaari waajur. Mm-hmm. di ñaan jàmm ci réew mi. Mm-hmm. di kontaan lool altine jot rek. ba ma toog ak yow ñu waxtaane làmb. ci xam-xam bu tuuti bi ñu yàlla jox. Euh, ñu bëgg koo partagé ñiy dund làmb pare nag ci tontu say laaj. waaw père. macha allah kàddu yi am na solo avant gu 5 novembre du nañ ko démb mu si dimanche diggante Pokola Balde ak Gakou 2 euh, ki nga xam ni moo di Pokola Balde daal di daan ki nga xam ne moo di euh, le poulain de Balla Gaye di Gakou 2 si jël boo xamante ni amul benn werante ginnaaw bu ñu xeexee xeex bu métti Gakou 2 daal di ki nga xam ne moo di Pokola mais finalement Pokola moo daan Gakou 2 père ma bëggal nga décortiquer ma li nga xam ni moo di. Eh, combat bi. waaw xam nga bala ma ñu ci combat boobu sax damay gis comme li nga njëkk wax rek. Mm-hmm. ndax gis nañu Pokola moo bëri grand combat ba. Mm-hmm. moo tax amaaye ji bëri na lool nga xam ne ñu ngi waajal dimanche bii di ñëw mais Petit bari ak Jackson. Mm-hmm. léeg-léeg ñoom ñu woy mooduloo kon moo lay wan ne léeg-léeg ñu ne Modou Lo. avant gu 5 novembre mbaa noonu. Euh, Petit Lo bëri fa bëri bu rëy digganteem ak Jackson 2. Mm. mais xale la bu jar a bàyyi xel. Mm. mi ngi yokk. Mm. te ku ci ne dalay daan avec la manière. te même bu amul combat day takk ngembam dem ci tournoi yi. xale boobu ku ko bëgg a daan di nga teel a jóg. yemul ci ay butéel ak i gàllaaj rek de. dafa gëm entraînement te sa combat day yokk te ñi muy bëre daanaka duñ bëre day ñëw imposé la mooy def lépp. day ñëw imposer la daan la dem yoonam. Mm. xale bu jar a bàyyi xel la mm. mooy Petit Lo. Mm. Euh, combat yi fa am nag bëri na. ndax gis nañu Ama bu Malika. combat moom it bëre fa combat boo xamante ne nii moom dafa jóge ci écrit dem ci écrit mais gis nañ moo indi beneen état. Euh, bëre fa bëre bu rëy moom it daan jëla bu rëy. Euh, gis nañ Ibo bu Kër Mbay Fall daan fa ñang baalo. ñang baalo bi nga xamante ne nii daal waa ñang baalo moo daan iboo ñang baalo moo daan iboo bu kër Mbay Fall combat bi nga xamante ne nii daal moom moom lañ gis ne xeexu xeexuñu bëriwuñu dañoo leyaatoo rek ba ku ne am cinq mm. avertissement ñu disqualifié leen mm. Ketchup la ak ak ak ak ak Jokkel ñu ñëw nag ci grand combat bi mm-hmm. ndax Pokola mm-hmm. daan na mais difficilement métti mm-hmm. na trop ci moom mais bagarreur la mais dafa daje ko gën a yeewu dominer ko ci bagaar bi ndax dafa déclenché mu remise ko. mu mm. déclenché woon mu remise ko bi muy waaj a mu dajeeg moom dóor ko arrêt bu dal. Mm. foofu nag la ko dominer dóor ko ku yu méttee métti mais Pokola jom jaa bëri man gis naa booy jël benn kur peñ rek daw génn làng gi. parce que démb kuyum jël bu doon benn bër day daw génn. encaissé na ko combat bu metti la bëre gàkku xeex na bëri na ñàkk chance. et puis daje ku résistant ku dul ku ku ku dul ku dul découragé xalaat na ne à tout moment mën naa baax. mais démb perte démb gàkk moo cune mais bu cunewul woon. day non non parce que do na ko ci xeex dóor na ko ba mu kawate ba pare wër ko ndomba. daa xawoon naagu ci combat bi. waaw mais kee def rotation mu rasu def rëpp. def quatre appuis. Mm. ñu dem nag ci salange. Mm. dooma ndax. CNG nee na ma du vaar VAR football la ko moom li challenge la. Mm. moo tax avant ñuy joxe victoire dem nañ xool wane ne def na quatre appuis. Mm. mais ñun ñu yoroon micro yi sax dañ doon xalaat naan xëy na daa teg wet wala daa teg fes. Mm. mais biñ demee ci challenge bi xool ko la ñu wane ne def na quatre appuis. mais daal gàkku de métti na ci moom xam nga dominer làmb ñu daan na dafa métti. di féliciter nag Pokola ndax jomam. làmb amul jekkadi rek bàyyi demal rek ak sa jom. démb li ko ci génne non jom ak fit moo ko ci génne. jom ak fit moo ko may jël na kurpe ñu métti mais bàyyiwul benn yoon mais rek c'est normal. Mm. ndax ñoom ñaar niñ doonee ay xale ak nañ def stade ba. duy stade ba ba mu fees dell. bala Gaye 2 dégg naa ko micro ne ko boo andee sa poulain euh, ñu def nii stade bi. Mm. mu ne sama xol dafa sedd. Mm. ñii day wane ne bu demee ci kanam tuuti dañuy feesal stade bi dell. looy ñaanal sa poulain mu ne am nañ ci moom yaakaar du bëre bañ découragé gàkku de ma dégg ko micro mu ne ma maa ngi daan léegi ñëw ci yow ma ñëw ci pokola mu ne ma xam naa li may xaar per yàlla na yàlla na ma yàlla may ndam. Hmm. mais da ngay gis ku ci ne confiance bi ngay dégagé. Hmm. ñaari mbër la ñoo xamante ne espoir lañ yoo xamante ni làmb bàyyi na leen xel. Hmm. te xalaat naa ne bu seen wërsëg nekkee ci làmb fu ñuy dégg mbër danañ fa dégg. ndax am nañu jom. dañuy mobiliser te dañuy bëri ci fulla ak fayda. Hmm. jàppoon ni père Pokola bu defaree li nga xam ne moo di gardam dañ ko dégg ci làmb ci waaw non ñàkk ñàkk garde bi ci combat bi la feeñ Pokola ñu mu bëri yëpp dañ dóor njaar ñu yëpp mais tey dafa daje ko gën a yeew tuuti ci xeex. ba pare dominé ko. Hmm. muy borom jom replier wul dafa sóobu dañ ko dominer mu dëggal. Hmm. moo waral mu jël coup yooyu. làmb léeg la nga jël coup replier. defaat calcul. mais doo taxaw benn place rek mm-hmm. mënoon nañ ko dóor mu daanu mm-hmm. mais xam naa staff bi ànd ak moom danañ ko conseiller mm-hmm. làmb boo déclenché jël ay coup da ngay replier moo tax stade bi ji nga nim boo jëlee coup da ngay replier mais jël coup rek dëggal mën nañ la dóor nga daanu mais ci jom la bëre sunu borom ànd ak moom gàkku de jooy na xam nga dominer combat ba war a daanu ñàkk ko biñ koy lëng ko yóbbu mënatu sax xool laa man nag noonu lay demee mm. kii maye ndam kenn rek la mm. lenn rek laa bëgg xale yi tiire ci ay leçon mm. xoola lañ fa sotti ci gàllaaj xoola temps ba fa am nga bëre bay bëgg a dee kon biteel yi ban njariñ la am biteel bu amoon njariñ war nañoo xool mbër sax mu daanu yéen da ngeen nit ñi trente minutes di sotti ay gàllaaj def lu ne te yow da ngay bëre ba dee doo ko daanu wala nga daanu nañ yokk entraînement yi te dëggal biteel daanul kenn gàllaaj yi ñu sotti bu doon dëgg danañ xool mbër sax mu jaaxaan xoola combat démb ba ne méttee Pokola lan moo ko tax a daan jomam. benn biteel taxul mu am ndam. jom rek ak fulla ak fayda. kon booy nañu wàññi préparation musique te yokk seeni entraînement. dañ leen di nax rek yii nañ def loolu li ci ëpp aar la du gàllaaj c'est valable pour mbër yëpp nag. temps bi ñu leen di dagg. temps bi ñuy def ci préparation musique bi. bu doon loolu am na danga xool mbër mu daanu. mais ak loo mënti takk lu luñ la mënti takkal sarax buñ la mënti génneel da yaay bëre. soo indiwul fu laak fayda doo daan kenn ñu ngi félicité Pokola di encouragé Gakou 2. Pokola victoire fan la ko mën a yóbbu. waaw loo ci kaw rek lam moom boo daanee ñi ci kaw rek ngay séenu. ndax euh, ñii ñi ngi naan Talfa ñii ngi wax keneen mais ginnaaw moom ci écurie bu mag la bokk. danañ xam ñoom kat mooy doon seen choix. Mm-hmm. waaw. Euh, Gakou 2. day defarwaat gëj naa daanu te ndaanaan la. su bëree mu neex. te day mobiliser. kon moo lay wan ne moom it ndaanaan la. day dellu rek ñëw ci course bi na wóor na ma ne tey tey tey làmb mobilisation avantage la boo seetee boo seetee Zarko ak Ada Fass Zarko daanaka bi mu daanee Ada Fass ci suba ga rek ñu ngi démarché Ada Fass ba mu am combat ak Zos. kon Gakou 2 ak mobilisation ak nee mu nee mu jom ji mu bëre wóor na mën ne ay promoteur yi nga wax ak ménage looloo tax nag di mobiliser am avantage daan ak daanoo ci yam da ngay bëre mbëri nañ bàyyi xel looloo xew ndax yenn sponsor yu bëri daw nañ kon mobilisation bi ngay def mooy dimbale promoteur bi mu sawar ci di la tëgg looloo xew kon nañ ci jàpp rek ba baa ñuy gis sponsor yi ñëwaat ci làmb ji. Hmm. ñu jublu nag euh, si combat bu combat mooy combat royal bu dox ci Ama Baldé ak Modou Lo doon ko xaar ay at di ko xaar ay weer mu des ay fan ñu war ko bëre dimanche prochain le 5 novembre ci arène nationale mu nekk derby boo xamante ni entre Pikine ak parcelle parce que derby bi commencé na démb parce que Pikine ak Wakam démb doon nañ joué fële ca stade Alassane Djigo supporters AS Pikine yi démarré nañ hostilité yi pour waajal li nga xam ni euh, mooy combat bi. waaw boo duggee ci ñaari quartier yi da nga gis photo ñaari mbër yi démb bi combat bi jeexee waa kër Ama yi bi ñuy jibile dañ naan Ama dañ naan Modou Lo ci des. Hmm. waa kër Modou Lo yi xaaruñu sax. Hmm. pokola bëre. Hmm. bi ñang baalo bëre. Petit bëre dañoo ànd ak seen sëriñ boobu. Saa Touba euh, am na ku daanu ci ñoom. papi général ëmb ko moom it defal ko ay bagage ñu ànd ñibbi xaaruñu sax pokola bëre ñeen nag ñee it bin daane ngi naan booloo ci des kon moo lay wane tension bi commencé na mm. Mm, nga pëtiloo it bi mu daanee nee na Ama ci des mm. bu ko Modou jàppee pokola daan ne Modou Lo ci des kon moo lay wane combat bi commencé na te démb boo xoolee tension bi mais li ma gën a marqué xam ne maa ngi ci arène bi. Mm. alkaati yi ma gisoon ñu toog jëmi yi. Mm. jël ay chaise. Mm. te xam ne làmbi tey ji pour assurer rassurer sécurité bi moo leen indi mais ci combat wu bi lañ doon waxtaane maat maa ngi toog seen wet. mais nan la ñu war a taxawee dimanche. pour am moom sécurité kon jeex na te du ñoom rek. ne xam naa ne gémi dina fa ne police dina fa ne bokkut ak ñiy civilu pégiman yi mm-hmm. ndax journée bee toll noonu nag mm-hmm. am na ñu naan sax arène côté bële porte mënuñu ko musuñu ko ubbi te est-ce que duñ fa def sécurité pour ñu mën a dugg di fay mu ama ah, jaare noonu mootloo jaaree nii. loolu moo ëpp sécurité. pour raison de sécurité. kon moo lay wane combat bi. je pense que promoteur bi naanaan la. Ah, war naanaan la mais li am solo rek mooy ñuy ànd ak ñaari mbër yi. war nañ teg benn schéma organisationnel boo xamante ni Modou Lo day aw porte bi Ama aw porte. damay ñëw rek loolu nga wax sax dëgg la mais ñi ànd ak ñaari mbër yi. Mm-hmm. nañ dimbale ñaari mbër yi. niñ leen di dimbale mooy ñoom ñoo signé contrat mm-hmm. ay adversaire lañ duñ ay ennemis. Mm-hmm. ay adversaire lañ pour benn tàkku saan bu jeexee rek jeex na. bu paree le mardi ñu dem jëli seen reliquat. bu ñu defee seen dernier face to face promoteur bi fay leen seen xaalisu sponsoring waa ka ñëw xeex ba làmb ja yàqu kon loroo sa mbër te bu làmb ji yàqoo yow da ngay bàyyi dem liggéeyi mbër mi def lan kon duñ ay ennemi ay adversaire lañ pour benn tàkkusaan nañ solo ba rafet ñi war a ànd ak mbëri ànd ak mbër yi bu ñëwee contrat bi ñu si ñu respecté ko ñu bëri nag que le bu ko defee ñu tàggoo contrat bi ku ne dem witi leen mais fii ak arbitre diriwul dàll yi ñu laaj leen ndax pare na ñu sif la ñu bëre contrat bi du leen wàcc ama ah, depuis ko maam ak Papa Sow su ma juumul saison 2017 2018 la jamono yu lay war a doon ba léegi su ma juumul bëriwul Modou Lo ba mu doonee roi des arènes moom it ay at a ngi bëriwul te làmb temps bu gàtt la at moo toog bëréwoo ko yaa ngi perte ndax doole ji du la fi xaar mm. at yi du fi xaar te yeneen beneen génération gi ñëw di rêve jëlee leen fi mm. kon nañ leen jàppale ñu remplir seen contrat dem witi leneen mm. man du rek laa conseil ñu ànd ak ñoom bésu làmb ja nag ñun dañuy dem rek seetaan que le ndax xam naa ne ñaari jàmbaar lañ ñaari gagneur lañ ku ci ne dafa nga ne combat boo signé yaa man ndax ñaari jàmbaar ñooy daje man li may conseil rek mooy ñu leen accompagner ku ci ne am nga métier ñoom ñu am làmb kon nañ leen jàppale ñu tàggoo contrat bi dem defi leneen. Euh, wax nga ko sànq sa vidéo avant gu combat wu dimanche bi bëri nañ ko démb résultat yi ñaari résultat yi muy combat Pokola bi ak combat Petit Lo bi ban influence la mën a am si ñaari mbir. waaw influence mooy da yokk confiance rek. kii doomam a doon bëre daan kee jarbaata ma doon bëre daan maanaam démb kër yi neex na. waaw dañuy jubilé rek ku ci nag da ngay reefee ne tey nii sama doom daane yàlla naa daaneen kii de nii sama jarbaat daanee naa daanee noonu kon ku ci ne da am confiance da yokk confiance kii day bëgg jarbaatam ndam li mu indi tey mu indi ko dimanche kii day bëgg doomam ndam li mu indi tey mu indi ko moo lay wane day gën a yokk enjeu bi ndax ku ci ne da ngay bëgg am ndam waaw liñ naan jeexaat foofu rek doom rek delloo fa sa loxo. Mm. ku ci ne loolu ngay bëgg. Mm. ndax da ngay bëgg sa gox ni ñu feetee victoire dimanche da ngay bëgg yow dimanche bii di ñëw ñu feetee victoire noonu ci yow. Mm. loolu da leen yokk rek euh, ak njàmbaar la leen di yokk. Euh, ma ñëw si ki nga xam ni moo di Ama Baldé doomu Falaye Baldé ma bëggoon nga defal ma benn présentation ndax mbëri yàgg nga ak ñoom depuis di claf les force ak faiblesse bi nga xam ni mooy di kii di Ama Baldé. Amanda naan la premier combat mi ngi ko bëreeg Oussou Ndiaye usu Ndiaye euh, léegi mi ngi ci école de lutte bàcc Seras sa jom Ibamar la ñu bëree fa la ñëwee di wane boppam di wane boppam ñu gis beneen ama mos naa ko ne sa combat ak Pël jël nga coup boo xamante ni boo doonoon jàmbaar wala Baye Pël xam ko mën na laa sonal ci làmb ji mu ne père bi ma jëlee combat gisatuma sax ñi ci estade bi mais ma wax ci jomu ama bi mu toogee ba mu yàgg nag ba miir bi dañ dafa attaqué bàyyi pël forcé ko daan ko dem yoonam ama ah, carrière am yëpp mosta bëre combat bu metti guy gi daan ko nees daan ko mu ne def naa ko asaka di reyante ci làmb ba romb kooku mooy Ama Baldé guy gi nag jàmbaar la ba léegi mi ngi ci course bi di reyante nees bàyyi na dem États-Unis boobu ba léegi Ama déggul muñal ku mu dajeek du la may dara jël Malick Niang ñu ne day xaru Malick Niang dox ci koom ñu xeex da ko remise dóor ko ko dal gëdd ko Malick soobu mu fàq ko bés ko mu tëdd Tapha bokk TNT ñu ne mooy favori daan premier combat am deuxième mu dajeeg Ama Ama daan ko am six points mhm. résumé jël TNT ba neuf points la fa génne ñu ne ko Ama yaay kat mu ne ñëwuma pour bëre damaa ñëw pour doon roi des arènes. Mhm. nee na moom ñëwul rek pour bëre nii dem yoonam moom dafa ñëw pour doon roi des arènes kooku mooy Ama Baldé. Mhm. di ndaanaan loo xamante ne nii papaam da ko doon wax ndax nee na vingt deux heures wala vingt une heures nee na au lii nee na mi ci ginnaawam nee na mhm. Ama deful dara. ba pare ne woon lu manque ci kër gi su Ama ñëwee dina ko mottali. Euh, parce que euh, ki nga xam ne mooy papaam di dem si yàlla Falaye Baldé ba ne bu ne bu caat màggee rek affaire yi jeex. waaw moom laa tënk léegi daf na lu manqué parce que Papa Balde bëri na Jules Balde na. Mm. Paate Balde bëri na. Mm. moo tax mu ne lu manqué woon bu caat ñooy dina ko mottali. Mm. mais loolu laa la tënkal mais lan moom motivé euh, Falaye Balde wax ni bu caat manqué bu bu caat màggee rek lépp jeex. boo boo juree doom xam ko. ndax doom sa genn wàll lay doon. relation bi mu amoon ak moom. Mm. ama dem na ba dëgër papaam ñu ne papaam da koy defal li ñu naan boolu dof. da koy bu mm. buñ ko jo bu koy lekk da koy des da koy desalal. Mm. su ñee lekk doo ko tëdd. xale bu melee noonu day làq sa ngërëm. am na ñu ne sax moo ko ne woon tabaxal këru famille ñëpp dëkk soo paree looy witti nga jóg koo witti. doom doom bu defee loolu barke da koy topp. kon xam na doomam moom bu baax. am na ci combat bii ma lay wax moom Malick Niang mm. xam léegi bu amee combat balaa ñëw làmb ja day dem ca armel ya ci suba gi ci mm. matinal bi mm. bu demee ziar papaam doo ko ñëw takk ngemb ndax Ama dafa juddu fekk ngemb li ci kër gi de papaam lu ne def na ko ci réew mi kooku mooy Ama Baldé ñu naan ko sëll bu ndaw mm-hmm. ñi naan ko pël bi maanaam tur wi ne ñu ngi ko koy tuddee mm-hmm. ñu naan Ama yee muy ndaanaan bu mag nag su baakoo mu neex su bëree mu neex lan mooy force Ama Baldé père. Ama fit ak doole rek ak gëm-gëm te jàng na bëre. Ama gëmul mbëri boppam rek la gëm. bu la dóoree dina ñëw boo ko dóoree dina ñëw te bu jàppee day bëre kooku mooy Ama. Hmm. lan nga jàpp ni moom mooy ay ay faiblesse Ama Baldé. am na ñu naan day gaaw a sonn ci bëre mais moom balaa sonn daan la li ci ëpp <laughs> loolu est-ce que wax rek. maay wax ak yow de maay wax ak yow. day ñàkk cardio quoi. non loolu gars yi koy wax ma góob ndax balaa sonn daan la. kon jàppoon ni Ama am nay faiblesse. non non am na faiblesse ndax boo naagoo wala nga sous-estimer sa adversaire mm-hmm. kon jàpp confiance bu ëpp. excès de faux confiance. loolu faiblesse la. Mm-hmm. waaw naagu ci nit. Mm-hmm. mën la andil mbett. loolu faiblesse la. gëmal ne ku jël sa avance da ko jël pour daan la. waaw kooku Ama Baldé. KPR yaa ngi daan de. non non làmb laay wax ak yow man maay maay wax ak yow. Mm. làmb laay wax a yow de. Mm. ma ñëw si ki nga xam ni mooy Modou di doomu Parcelles di doomu Taïba Ndiaye. Modou Lo ñu naan ko Doudou Lo su ma juumul Ousmane Dëkkër la njëkk a bëreeg Stade Assane Diouf. Mm. ñu tuddee ko Modou làmb ji di daw ba ci kalaaf. bu Gaston ba. Gaston ne damaa bëgg Papa Sow. ak Modou Lo combat ma ne ko boo ko doxee du sotti ndax parcelle. mais boo leen boolee galaa boobu may démarchel Gaston ay combat am ma ne ko mais boo leen boolee galaa ñoom ñaan yëpp dañuy nangu ndax galaa ñëpp ci bëgg a bokk ndax day génne mbër. loolu moo waral ñu bokkoon galaa Papa Sow du bëgg a génn Modou du bëgg a génn. ñu dolle ci Tafa Boy Bambara ak Paul Maurice. Modou Lo daan ñett ñëpp. final ak Boy Kayre Papaay Diène. la final ak dóor ko mu daanu. reefam nag mu ne doon roi des arènes bëreeg Lac de Guiers bëreeg Gris Bordeaux daan ko Lac de ñun nii dellu si mu gañe ko par décision arbitral topp làmb ji Balla Gaye këpp këpp yelwaanam ne ko barke sëñ Saliou maa la man fu ma la jàpp dama lay daan mu doon combat bëri coow bi ñuy lukkee ko ñu leen di fay 40 millions dañ ne ñi mérité wuñ 10 millions mais booba xale yi luy génn yuy génn la booba mënoo koo tëgg te ci xaalis Balla Gaye daan ko mu takkuwaat ñëw ci kurs bi du bàyyi benn yoon ba bi Balla Gaye feebar bi dab ko ñu tëggaat ñu ne Balla Gaye xëy na mënul ci moom dara mu daanaat ko hmm. kon Balla Gaye daan na ko ñaari yoon mooy benn war mu mu topp nag pour bëgg a doon roi des arènes bi mu amaatee ndam ci Gris Bordeaux am ndam ci Lac de Guiers par décision arbitrale mu tëgg am nañu ne combat am ak Bombardier moo ko tëgg dañ ne corps production la defoon boobu Bombardier mooy roi des arènes moo ànd ak Matar Subateel dañ ne Modou Lô ci combat bi dafa bokkoon pour ree pour doon roi des arènes ndax boobu Bombardier mooy roi des arènes combat boobu dañ ne Modou ci organisation bi la bokk moo defoon corps production ak Matar Subateel mm. jox Bombardier avance ñu tëgg làmb ji yàlla def Bombardier daan ko mm. taxul mu bàyyi de mu toppaat ci course bi jël Eumeu Sène boobu Eumeu Sène ay roi des arènes nekk ci Eumeu Sène la war a doonee roi des arènes dóor Eumeu Sène mu daanu moo tax combat bi am enjeu Ama dafa ñëw ne dafa doon pour roi dafa ñëw pour doon roi des arènes mais roi des arènes bi bi mu bëgg a doon Modou Lo ci magam la ko jëlee muy Eumeu Sène moo waral tension bi bëri moo tax coow li bëri na lool. Mm-hmm. Modou Lo moom it wax naa ko léegi bu muy ubbi ba mu doonee roi des arènes ba léegi tooyalagul xaftaanam. Mm-hmm. mu war a mu war ko remettre en jeu le titre du roi des arènes. le mi ngi gëj yàggee ci mbër ci Tyson Yékini ak Manga. Mm-hmm. ñeneen ñi doonaat roi des arènes yëpp Balla Gaye de doon na roi des arènes mais benn victoire la ci teg. ndax bi mu doonee roi des arènes bi mu daanee Yékini. Tapha Tine rek la daan. ñëw ñàkk ko ci Bombardier. Bombardier doon roi des arènes bu njëkk ba ci Tyson Ibou Ndafa rek la daan ñëw ñàkk ko ci Yékini Bombardier doonaat roi des arènes Balla Gaye la ci daan ñëwaat ñàkk ko ci Eumeu Sène Eumeu Sène doon roi des arènes moom amu ci victoire il est le seul roi des arènes boo xam ne moom bi mu amee doonee roi des arènes dernier combat am dafa ñëw rek premier combat bi mu ci def. dafa doon roi des arènes ñëw rek ñàkk combat am. ci diggante moom Modou Lo. Modou Lo nag ba mu doonee roi des arènes ba léegi tooyalagul xaftaanam. ndax day yàgg ak couronne bi ndax da ci am ay victoire loolu as le cinq lay leer. mu nekk jour de vérité entre. léegi nag li ci doy waar mooy. ñaari mbir dañoo am combat ku ci ne. Ama su paree le 5 novembre. ma nga jëm le 7 janvier ci diggam ak Gris Bordeaux. cee war a jël ak Modou su paree la 5 novembre ma nga jëm le premier janvier digganteem ak booy ñaar te jóge ci ndam jëm ci combat moo gën a wóor ci la sa xel di gën a dal nga mm. jóge ci defet di waajal combat. maay wax ak yow de da ngay am mooy war a combat bi am am am am tension am enjeu. Mm. ku ci ne da ngaa bëgg am ndam. Mm. mais. li ma xam daal ci ñoom nga xam ne mën naa koo garanti. donte garanti sax warul mais moom laa yaakaar ci sama xam-xam. xalaat naa ne combat bi moom kenn du ci xalaat ay match nii lag wala yooyu. ñaari mbëri li ñu xam ci ñoom. suñ ko andee. li wértoor jël day am. ah loolu laa gëm ba baa may gis le contraire. lan mooy avantage Modou Lo ci combat bi. avantage yu Modou Lo mooy bañ a maye dara xam ne xale bi day wit si te gëm-gëm mu lay wax moom la loolu la gëm. na ko bàyyi xel lool. ama du wax di wàcc. xale la boo xam ne ci gëm-gëm rek lay dox. nee na ko su ma la teeloon a gis coono bi ma daj ci làmb ji dama ko daj loolu la gëm de. mais loolu est-ce que du pour perturber psychologiquement. waaw man ngaa attaqué ànd ak contrôle li bon mooy nga attaqué attaqué aveuglement mais mbër bu tàmmee attaqué su xaaree rek mën na ci am lu ko naqari. man nga attaqué ànd ak contrôle. Mm-hmm. attaqué mais bul naagu. Mm-hmm. mais boo tàmmee attaqué boo xaaree rek mën na feeñ. Euh, ñu nekk ci dernière ligne droite combat bi. Mm-hmm. ñaari mbëri combat bi sept jours moo ci des. Mm-hmm. ñaari mbëri lan lañ war a def pour éviter li nga xam ne moo di blessure. waa maintien rek ñaata at boo parewutoon doo pare. Mm-hmm. moment bi maintien di lekk ba suur di dallu. ñu ngi waajal seen open press ama di la koy def Alsaan jiko Modou Lo mercredi la open press am euh, terrain ACAPES su ma juumul moo ne parcelle. Mhm. ñu ngi waajal seeni open press. buñ paree li ci des rek mooy dallu di def maintien di récupérer. Mhm. Euh, yenn voyage yu bëri sax jaratu ko boo mënee yebale. Mhm. bu ko defee le jour boo ñëwee nekk. ban façon récupération la mbër wër maa di dallu di nelaw yu doy. rek mbër da ngay nelaw. da ngay lekk di nelaw. moment bii loo amutoon doo ko am. surtout éviter yenn voyage yi. waaw que waaw waaw man nga doog wala sa yaram fatigué. gis nañ bébé Diène ba mu amee combat mu demoon fi Touba di ñibbisi def fi accident. Euh, non non la euh, booy ñaaw bëri na combat moog la dëggee rek tafaatin ñu ne ci biir semaine bi dafa dem Nimzaat te Nimzaat dafa sori euh, loolu mën na feeñ loo amutoon doo ko am ndax combat bi ñëw na ba noppi waaw loolu moom lu leer la mo moment bi ñu toll loo amutoon doo ko am. combat bi si lan na mën a jeexee. bon ci li mën a jeex wax naa la ko léegi tout est possible. Mm. mën na jeex ci xeex mën na jeex ci bëre. Mm. ñaari bagarreur lañu. Mm. Modou dafa day xeex. Ama day xeex. ndax ci biir seen biir carrière Ama Modou moo ëpp lum kawate mbër. mais Malick Niang ko mën a affronter. mën a affronter Tapha Tine ko mënta xeex ak amul te Ama affronter da ñaari mbër yooyu. le combat bi le plus que muy endurer. si kan lay ëpp avantage. non bu yàggee noonu yàgg yàgg benn yàgg bi. damay xalaat mën naa doon avantage yu Modou Lo. mais Ama du bëre combat bu yàgg. parce que ñaari mbër yi kenn amu ci compétition. non mën nañoo am compétition gëj a kon gëj a bëre. taxul nga ña taxul nga ñàkk compétition mais mais père compétition mooy nga. compétition mooy nga dégg man ngay wax ak de damaa jaar ci làmb yow jaaroo ci. Hmm, ah, lu leer laa lay wax mais mais mën nga di bëre mais mais sans am compétition. non xoola li ngay physique def musculation te doo bëre. lamb ji amul app yavant rek fa am ji nga boo dee contact lu bëri ak ñi ñi am combat ngay non du feeñ. ñaari benn dix minutes ak ñaari dix minutes in la may ak benn cinq minutes non doo ci sonn ndax fekk yaa ngi koy contact li mooy. nga gëj a am combat gëj a contact boo ñëwee entraînement rek def musculation. def ay appui avant ba sa yaram fees boo jàppantee tuuti sa yaram day fees. dootoo mën a def dara su boobaa day feeñ ci làmb ji de mais bu dee yow xoola xoola jàmbaar li fi jaar ci ay combat yëpp bu dee combat yëpp Modou Lo mi ngi wàcc di contact ak ñoom mais làmb ja bëre fa am mu ngi mel ni jour bu dul laal bal surtout ngay champion miin ay tàkkusaan yu rëy mais bu fekkee nag. ñeenti at yi nga toog booy dañuy am combat rek nga leen di accompagner doo contact doo def dara ne mën na feeñ mais bu dee ci biir préparation combat yaa ngi ànd ak booy di contact di bëre ba sonn non du feeñ ca làmb ja est-ce que dégg nga fi ma waxee. Mm-hmm. entraînement bu bëre la boo dul bëre day feeñ et puis même boo ko jutoo bëre bu doon sax daaw bëre nga ren nga am combat saison bépp contact di daw rek mais day feeñ. mais bu dee yaa ngi contact dama la teel wax bu dee yaa ngi contact lu bëri. non du feeñ ca bés ba. xam nga yaa ngi gis mbër def tuuti jàppante tuuti rek commencé muscle yi fees du mën dara xam nga lu ko waral da ngay def musculation te doo contact contact bu doy. c'est entraînement bi moo coordonné wu. voilà jeex na mais boo dee contact contact bu doy ku am combat ngeen àndandoo di bëre mais temps timing bi ñu la may nga koy bëre mais doo ci sonn. parce que soo xoolee la plupart mbëri. Mhm. ku ci bëri cinq minutes commencé épat. li koy waral mooy dañ doon contact lu bëri man gis naa ay mbër yoo xam ne dañuy contact ba noppi sax ñu leen di jox ndox ñu sànni ko duñ ko laal mais am ñoom ndox xam ne boo leen bàyyi ndox mi sax ñu naan ko ba mu jeex <laughs> li koy waral mooy parce que entraînement bu su su su su su su méttee rek combat yomb euh, ba kii euh, mhm. combat bi du sonn sax. du sonn. parce que day leen ki demee day indi entraînement bu doy ñëw def lu wóor moom li muy entraîné ba léegi bëreegu ko. da ngay gis mbër yu bëri dañuy miser sur musculation. mais cardio du liggéey cardio mooy li ma la nag. mais bu dee li ngay am ci musculation da nga koy contact contact bu doy mais du feeñ ca làmb ja doo gaaw a sonn mais entraînement mbër bëre la. boo dee entraîné ba sa yaram rafet te contact booy jàppante ñaari yoon da ngay sonn ba dootoo mën a yeggali. man am naa fi mbër su ma benn fiche léeg-léeg ma tooñ ko de yow naan père man roi des arènes laay doon mais combat bi passé mm. am na victoire pour ñu yëkkati ko jox ko ndam li sax fa toog jógu fa bëgguma tudd ma turam di ko tooñ jógal rek ñu yëkkati sa loxo mënu ko ci suuf la de. <laughs> Euh, damay terminer euh, ki nga xam ni moo di ñaabu ndaw combat am ak Zarko euh, Gaston production taxawal na ko. muy combat bëri coow mag ak xale la. Mm-hmm. Zarko nag la ma waxoon dëggal na ko. dafa ñëw ci làmb ji pour bëri xaarul ñenn ñi ne ñu waru ko woon a jël euh, mënoon naa xaar mbër yi leen ëpp tur. parce que ñu bëri ñu bëri ñoo ngi kaas amateur yu bëri ñoo ngi kaas ne euh, Zarko ak Niang bu Ndaw waruñu woon bëri parce que nee na yooyu sax damaa xam ne bëri na ñu koy ñaxtu. yoon bi dafa gaaw yoonu Niang Ndaw. am na écrit yoo xam ne bu doon ñoom la duñ ko nangu. Mhm. mais Zarko benn am am na loo ko mën a nangul. Mhm. dafa am tuuti retard ne da koo bëgg a dabuwaat. Mhm. su boobaa ko. koo tere. ndax nit Zarko magum jëmm la. parce que mooy tegle ñaari contrat. waaw yor këram bëre ak jën kay rek waaw waaw xam nga. ba muy bëreeg Ada Fass dañ ne waru koo jël. Mm-hmm. ndax moo ko raw. Mm-hmm. mu wane boppam mu wan na nit ñi ne leen dama ñëw pour bëre te làmb ji dañ koy bëre. Mm-hmm. ci côté boobu da nga koy nangul beneen bi xale buy lukki ku teel koo jël moo nga bàyyi ba expérience bi gën a yokk. teel koo jël balaa expérience bi ñëw nga am nga nga juumloo ko. baax na te ñaayit taay bii ma gis ci moom ak lii ma gis ku bëriwuloon moom ren di nga bëri moom déwén ndax daa am cër ci làmb ji. Mhm. jàppoon ni euh, ñaabu ndaw moon na xaar tuuti bëree ak moromam moo gën muy. profité non ñaa amu ci lu muy perte. Zarko la ñuy wax ne waru ko a jël mais ñaa combat bi arrangé na ko. parce que dañ naan athlète dafa war a am lu ñu naan. projet de baax na baax na même bu ko daanee da ko euh, danaan da ko expérience mais ki ko daan ren doo ko daan déwén. su ko daanee nag mbooleem ay adversaires yi day mën a bëreeg ñoom. Mhm. moom amu ci lu muy perte Zarko lañ naan même bu ko daanee dañ naan da koo gën a yeewu kon witti ci woon dara. mais ñaa moom baax na ko euh, ménagement bi baax na ci côté waaw baax na. li ñuy waxtu jonna dañ lay bàyyi nga tàgg di kontaan rek di wax na nag lu ci rafet boroom bi la lu ci ñaaw jaam bu xeebu. waaw di wax rek ci xam-xam bu tuuti bi ñu am. di ñaan yàlla yàlla def ci réew mu jàmm. Paa Ibrahima kontaan naa ci yow jërëjëf. météo gu